tu as la possibilité de donner ton ton bout de tissu à mhm. l'avance ñu defaral la ko et que da ngay ñëw rek ajuster euh, à ta convenance loolu aussi loolu mooy wane ne plus ñuy dem dans tous les euh, secteurs nit ñi dañuy xool une manière euh, plus subtile de fair les choses et de adapter ko moderniser ko bu njëkk bi gis nga musóor bi nii li mu li mu wane moom la ma defal nii moom laa takk léegi dañoo dem mu mel ni comme comme ça genre chapeau mhm. plus ngay plus ñuy dem plus euh, yëf yi di changer mais il faut savoir aussi que ce n'est pas euh, à historiquement du du musóor dañuy ñëw rek teg ko parce que euh, ñun ñu ngi koy wooyee musóor mais au Mali c'est musoro au Nigéria se jële lañ koy wooyee bëri na aussi yeneen dukku comme par exemple Malawi ak Ghana mais am na aussi beneen signification bi muy am il paraît que parce que origine bi mu ngi jógee ci les pays de l'Afrique de l'Ouest Ghana hmm, j'avais pris quelques notes Nigéria euh, Bénin Togo et il paraît que boo takkant musóor suivant ni nga koy takkee rek mën nañu xam doon mën nañu xam en fait ce rang social en fait. donc il paraît que quand le musoor est noué à droite ça montre que la femme est mariée. Mmh. donc yóbbu naa ko <laughs> derrière la yóbbu. <laughs> léegi nag bu dee euh, du côté. Euh, Euh, j'ai dit droite du côté euh, gauche. Mhm. ça montre que euh, la femme est nu mu tuddati célibataire la donc du coup noonu lañ koy xàmmee en fait. Mhm. léegi nag loolu mooy wane ne tamit que suivant pays ak ethnie yi. ku ci nekk euh, musóor fu le le foulard euh, sur la tête am na lu mu doon tekki. il paraît que aussi au Mali euh, bu bu nit takkee dafaam am dafa kii signification en fait protectrice c'est-à-dire que le foulard de tête a une fonction protectrice. c'est plus mm-hmm. mystique parce que dañ naan bopp moo jiitu ci corps bi donc du coup ku lay def dara ci ci musóor bi lay kii balaa muy jot sa bopp en fait. donc mais pour dire juste que ne. xanaa moo tax seen musóor yu malien yi ngande loolu seetlu ngeen. musóor seen bopp bi yëpp ah. dee mhm. Mhm. Mhm. en tout cas plus ñuy dem plus euh, musóor yi di changer mais quand même li li baax mooy c'est-à-dire que peut-être ci yenn pays yi ñu ngi garder li nga xamante ne loolu la musóor di identifié historiquement. Mhm. donc c'est bien c'est vrai que euh, ci kii la bokk nu mu tuddati ça fait partie de l'attribut euh, féminin mais. Mhm. Euh, en tout cas am na lu muy dégager et que lu ñu lu ñu moom dañ ko gën dañ ko gën di ko valoriser. Mhm. parce que tamit nga sol yére. musóoru. sol sa yére olof musóoru. ak nga bañ a musóoru am na différence. ku xool asma tey jii. xool bi ñun. ñu ngi gën a xool ko asma. <laughs> waaw loolu moom dëgg la ah, ah <laughs> mais tamit mais tamit du yére olof kese parce que léegi sol je veux dire Mm-hmm. léegi c'est moderne mun nga sa sax sa yére olof euh, nu mu tuddati sa yére waa sa tenue de ville sa jël sa musóoru vax noué ko donc c'est pourquoi de plus en plus nit ñi dañuy def ay tuto oui c'est à la mode ay tutoriel pour comment nouer un foulard euh, et cetera et cetera donc du coup vraiment c'est c'est quelque chose à faire et puis c'est joli c'est voilà fépp lay dem daal. Ah, et que du mode de coiffure turban yëpp a jàpp kanam yëpp aussi. Hmm. am na ñoo xam ne dañuy jël turban bu ngande teg ko seen bopp sa kanam ngi ndaw mel ni sama yos kenn du xam looy nirool. ah nga am gar yi bopp jël musul bu ndaw. nuyu ko kenn du xam tamit looy nirool. Ah, dëgg la surtout boobu ñu mel ne lu ko raw noonu. waaw waaw waaw boobu boobu jàppul ñëpp. moi je trouve que am na ñu mu jàpp comme li Yacine wax. peut-être tamit ci ci ci ñu koy defar la ak ni ñu koy defee. Mhm. parce que lépp loo gis tamit inspiration de sa def see baax parce que tamit mi le fait que euh, laal na ci beauté laal na ci sañse et tout je pense que ñi koy def aussi dañu c'est des artistes. Mm-hmm. parce que di nga gis aussi ci yenn œuvre yi sax ci yenn euh, tableau yi nit ñi di représenter sax li li li femme ak muso di jëriñ. xam nga li ma la wax. Mm-hmm. donc du coup je pense que inspire c'est une question d'inspiration et bi moom defee na ko ni mais am na ñeneen nu ñu koy defee yow yaa ngi ni kilo musoor je veux dire ñun ñëpp a bokk côté bi ñu dem. Mm-hmm. mais ni ñu ko defee du benn. donc du coup je pense que c'est une question de création c'est une question aussi de voilà d'artiste ku ci nekk daal am nga loo ëppale sa morom. Paa Sane jigéen bu musoor ak bu bu la ci gënal. jigéen bu musóor ak bu musóorul bu la ci gënal. mais mais jigéen bu musóor. Hmm. xam nga jigéen balaa am doole dëgg. Hmm. day mitik mit. Hmm. jigéen kumpa. ci lay am kattan ak doole. xaw ma ndax dégg ma. mit xam nga luy mit. mooy lu nëbbu daal loo xamante ni kay gëstu. mais looy wut day day day métti si loo xam ne danga koy gëstu. da ci bëgg a xam dara. mooy mhm. explorer pétrole ci suuf. Mhm. da sonn. Mhm. jigéen dëgg. waa kaa wuti. di dox. di jóg. doo nelaw. ak metti loolu nag mooy jigéen moo tax musóor. bopp dañ koy muur dañ kaa muur. macha allah waaye Luisa xam nañ ku jaar si musóor bi waaye kan moo jaar si sañ sa bi. création. bonheur création waaw xam nga nag dama am ñu may dooleel ci rubrique bu beauté. te des mhm. na nag am na yeneen surprise parce que bon maquillage yaa ngi ñëw bon coiffure yeeg. macha allah ñu des ñu mën a yaa ngi ñëw. Mhm. des na sax dañuy dinañ organiser concours xool internet yi ki ci dàq maquillage ki ci dàq musóor ki ci dàq sañse. ñu jox la bon ñu def ñëpp ni ni formation maquillage yeeg ah yëpp ngi ñëw. macha allah madame Diatta qu'on salue au passage de suñu taar moom tamit mi ngi may taaral ngir ma taaral plateau bi tamit. waaye nag xam nga kon da ngeen jël seen ay couleur ndurale ko man sama copine a ngi ñëw su ki ma nduraleel couleur man mi ngi ñëw ba mu neex ba pare ñu defandoo bopp nen. Mm, ah? waaw macha allah boo leen bu leen neexee ngeen tendance ñu waaye ñoom léegi mu yéeg ma tendance leen man tamit. Ah, yow sa bopp rafet na macha allah. macha allah c'est beau mais c'est beau c'est vrai. ta tenue donc jàpp na la. bien avec ma nouvelle copine doo leen ma bàyyi mu wut xarit bu bees lan la. bàyyi ko rek ah dañoo dañoo teg ba ñu doole bàyyi ko rek. mais en tout cas moom ñàkk la wóorul bu teg ñàkk daal xam naa ne day yokk ah, jongoma. comme ni nga ko waxee day yokk ñàkk ko wóorul ñàkk ko wóorul. am problème bu mag bu rëy Lisa yaay sama premier xarit. Ah. kii mooy sama naataango préféré roxee di sama xarit. Mm. Ah. Euh, kii di ñëw nag xam nga tamit gan dañ koy ganale <laughs> dig daje nañ ko fii euh, euh, ci njëlbeenu semaine bi mu nekk Mamiko fasciné ñëw ak ñun ci li nga xamante ni mooy le journal de la femme jigéen a ko ñor te ñëpp gis nañ loolu ci moom kon nag ci kanam tuuti on va la recevoir sur le plateau je vous remercie et ci dans la semaine rek. gars yi moom loolu la ñuy def dañuy dem indiwaat yeneen yu bees. macha allah waaw ñu tàggu leen rek Papa Sane Yacine euh, ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suba teel ak téléspectateur yi ñu seetaan nu ah, elle nous elle nous rappelle nos valeurs sûres à ne pas ah. à, la maison. loolu ah, de am na. Hmm. yow moom yaa ñuy taaral. mu ñu si mbedd mi nit ñi wegg ñu. su ma su ma su ma defaree kanam yi defar bopp bi pare roqee woon na ñuy toogee. ah te est-ce am na solo mhm. loolu moom ñu bëri xam nga tey couteau ak fourchette Yacine. akamaa si bëri ay moro gauche la ñuy ci jëlee fourchette bi di ko lekkee parce que gauche la tey téye ci bàkk bi di dagg. alors que bu ñuy <laughs> nii lañ waaw <laughs> mais am na ci boo xam ne mais tu sais euh, bu ñuy lekk euh, tey di ceeb ci boolu ci boolu ceeb. Mhm. kudd la ñuy mhm. jël mais xam nga tu la possibilité de manger avec. Euh, ak couvert yi. jaajëf paaka ak fourchette loolu tam mën nga ñu si defal tuto tuto du maquillage kese de. Mhm. Ah, tuto du maquillage kese de. waaw baax non tuto yi dinañ ñëw suba teel la ñu wax moo fi nekk moo fi teg tànk te mooy bomb ma jëlee jaajëfal bu baax a baax. ñu daal di jàll rek jëli ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw te fas yéene ñoo yebbil it ñoom it liñ ñu indil c'est tout de